sëriñ Abo Mbàkke mu di ko wax ci turu sëriñ Bachiru Mbàkke mi jëwriñu kër gi ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mi yor kàddu kër gi xam ne lii ak commision bi yor aj bi yor liggéey màggal gi ñoo ko tënk ni wax naa ko wax seen tur mu di ñetti ñetti mbir lay aju rek ci gàttal gannaaw bu ñu nuyoo jàdd yolle kàddu cant fàttali li tax ñu daje fi tey wax wax sëriñ bi ni muy téewoon liggéey ci gàttal mënoon naa gudd lool waaye jotaay bi gàtt cant gi mi ngi sëriñ baa ngi koy jiital jëmale ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko wax nañ ko sànq yàlla na fi yàggal te ndax taxawaay mu rafet ci diine ji ci bokk gi ci réew mi rawatina ci kër sëñ falo damay wax ne sëriñ Muntaxa li wolof di wax maa ca raw maa ca raw gàtt xel la waaye ku joxaso moom ku ne da nga fi mu nekk tegu fa kenn waaye kenn sikki sàkkawul te sëriñ bi xam ne teg na sëñ Fallu place bu rëy boo xam ne dañu alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàgg lool rek di sant kilifa yi fi teew yëpp kilifa yi diine yi waa kër sëñ Touba yi waa kër kilifa yi diine yi di nuyu ministre bi ministre Mokhtar Ba ak ministre yi mu àndal ak délégation bi mu àndal toogal ak ambassadeurs yi fi toog ak kilifa yi diine yi fi toog yëpp ak ñun taalibe yëpp suñ baa ngi ñu nuyu ñëpp di ñu sant leen gërëm ci lépp li taxawaayu rafet yi ngeen taxaw ci bis bu tedd bi xam ngeen ko gis na ko yëg na ko kàddu cantuk sëriñ bi dana ci ñëw di sant presse bi presse bépp rek presse presse privée bi ak presse publique presse d'état bi ak presse privée bi moo xam presse écrite bi la wala presse télévisuelle wala presse écrite ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku teew ci bis bi da nga jàpp ci bis bi sëñ bi gis na ko yëg na ko ma ngi lay sant di la gërëm te sant mën ta weesu sant te waxtu bi xat na ñette ñaareelu point bi mooy day fàttali ñu fi tax a ñëw rek juñu nañ ko sànq te ñëpp xam nañ ko mu di barkeelu ci feeñ gu Cheikh Mamadou Fadal feeñoon ci guddi gi te ne guddi gi lu bari xew ci ci ci la sëñ Fallou feeñ ci lañ gàdday ràññaaye woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu jógee Makka dem Baytul Maqdis jóge fa dem a kawe ci la jullit juróom wàcc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 wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni jàng ngeen ko yéen yëpp Sëriñ Tuubaa wax ne daan ko tuddi talabul xalaal waaw kasbul xalaal mu ne talabul xalaal farata la ci jullit bu nekk loolu amu ci mu ne xam-xam kese du jëriñ jaamu Yàlla kese du jëriñ fekk ko tey lekk lu lu dagan nag da ngeen di sàkk lu dagan waxtu ne bu ngeen bëggee ak njub bu ngeen bëggee seen seen seen topp suñ borom nangu ko ci loolu moo tax sëriñ abul ñuy sànq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 sëriñ Fallou bi tax ñu tax teew nag liggéey na liggéey yu bare bari ci façon liggéey yu bari yoo xam ne am na ci loo xam ne dama ko sañ a wax waaye am na ci lu ñu mën a junj moo tax ma ne fii sëñ bi tax ñuy ñu taw fii yaraate na jàngale na tàggat na ay nit jubbanti na ay nit tabax na ay jàkka tabax na ay jumaa aj na dimbali na aj ay ay nit ñu aji bay na sos na ay dëkk def na alal jul jeex ci yoonu yàlla dimbali na ay njaboot ñaanal lañu soxla seen fa aajo faju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 ak Serigne Cheikh moom Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi. Mm-hmm. yëg yu bari démb kon ñu ngi koy ñu leen di fàttaliku di la ñaanal sëñ bi joxe ñaan gi sëñ bi leen ñaanal ñun dañ ne woon ñu àggale ci lii rek di ñaan ñaan yàlla yàlla yërëm leen taxar leen àjjana ji gën a kowe lii daal lañ ne woon ñu tënk ko ci ci ci jéggalu nag ndax kilifa yi waruñoo teew ñu yëkkati kàddu danañ ndigal li bu ñu dajee bu ñu dabee te bett ñu rek danañ ca jéem a nab nab bi jëm caa jaaxase ne xam nañ ne wax waxtu xat na lool